الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di rafetlu bu baax topp ngeen topp liggéey bi nga xam ne daaira muqaddamatul xidma mi ngi koy amal fii ci jumaa ji ci ay waxtaani diine ay jataayi diine yu am solo yoo xam ne ab jullit da ci mën a jariñoo ci diineem man cee jariñoo ci àddinaam tey jii nag mooy jataayu fatwa ba ñu jagleel weeru koor gi muy ñeenteelu jataay bi di ci mujj insha allah ñu fas yéene cee ànd ak sëriñ Mbacke Abdourahman ñu fàttali tam mbokki jullit yi nga xam ne ñoo doon yónnee seeni laaj xam ne laaj yi moo xaw a bari dañ cey jukki rek lenn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 ñaan suñu boobu dafa lañu ci tawféex dafa ñu ci ndimbal fas yéene ànd ak mbokk yi ni ñu ko waxee sëriñ Cheikh ci jàppalante ci suñu diine ci jataay yu am solo yi nga xam ne daayiratu Muxaddamatul Xidma ñu koy baaxee mbokk yi ci weeru koor bu jot naa bu ñu siyaaree suñu kilifa yëpp tam la Cheikh Mouhamadou Moustapha yi nga xam ne ñu ngi ànd jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo bi kon laaj bi ñuy njëkkee boroom day laaj ne laaya ji sunu borom wax ne yaa ayuha alladina amanu in jaakum faasiqum bi nabain fatabayanu loolu lay laaj mu ne lan lay tekki waaw laaya jooju de li ci boroom xam-xami tafsir yi wax mooy ku ñuy wax walid ibnu oqba dañ wax ne sababam lu wàcce yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko yónni woon muy jëli ay asaka ci banil mustaliq xam naa bi mu demee daal ginnaaw ba mu dellu wax ko ne ko daal ñoom dañoo gàddu ñu wax sax dana dañoo tubbi te sax moom lañ ko naroon rey loolu amee yonent bi alayhi salaam yabal Xaalid ibnu Walid radiyallahu anhu ba mu demee nag gëstu ko fekk demewul noonu dañoo wax ne moom dañ ko séenee mu ñëw dañoo bëgg bi ko gàttandu xam naa ñemewul mu def ne dañ ko nar a song si euh, ñu ne ko lañ la mu waxoon daal dara nekkul noonu demewul noonu ca la aaya ji wàcce ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu leen faasiq dikkalatee ak xabaar bu leen indilee xabaar na ngeen ko leerlu bala ngeen a jóg di jëfandikoo la ngeen dégg mu leen di jural loo xam ne boo lëggee leen koy rëcc dañ ci dégg ne lépp xabaar boo xam ne mën naa jur fitna waaye mën naa indi ak réeroo saa boo ko déggee ci koo xam ne mbiram mat naa tey nañ ko leerlu ba mu leer door ji boobu yable woon nañ ñu song leen day fekk ne ndekete ñoom liñ leen di songe defuñ dara gàntu wuñ ña nga yàkkamte ndaw di ñëw bañ jox ko seen asaka ñu wan leen ne ñoom dañoo gànt wala sax dañoo bu leen ab faasiq faasiq mooy ku génn ab topp bu leen andilee xabaar bu leen jékki-jékki rek daal di jóg ne xabaar bi ñii la demee wér na koy jëf waaye na ngeen wóoru nag ci àdduna yëpp nañ ko war a bàyyi xel képp nit koo xam ne xëy na ak dundinam wala am na daal ci lu ñuy sikk ci mbiram wala jot lee xabaar bul daal di sukkandiku ci xabaar wala daal di jëfandikoo lam laaj ay leer loolu ma am loolu leer door a jëf jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne lan mooy atteeb koo xam ne dafa woor ñu génne maniom ci jumtukaay yi nga xam ne moom la médecin yi di jëfandikoo ngir def ci ay analyse muy laaj ba xam su fekkee ne mani bu dafa génn ci anam googu lan mooy atteeb koor googu ak kafaara dina ci war wala déet waaw bu fekkee ne day day faju nga xam ne docteur yi ñoo soxla ci moom mu génne mani mu dem def lu tax mani yu génn moom koor ga yàqu ndax génne man yu da yàqu ko génnuk man yu nag loo xam ne boroom sababu ko moom du yàqu ko waaye li wax ni kon moo def lu tax man yu ma génn koor yàqu na kon bu fekkee nag ne faju moo ko waral fay rek moo cay war waaye bu fekkoon nag da koo def ngir jubloo xotti war may ramadaan su boobaa day fay kafaar waaye comme daa mel ne moom nag docteur yi ñoo ko laaj loolu ngir faj ko ngir seet aw yaramam boobaa moom jubluwut a xotti pour may ramadaan waaye day faju donte nag li gënoon mooy mu nekk ba jant bi soob mu def ko su fekkee mën naa nekk bu dee nag loo xam ne laajut wala boog mënta muñ ba booba day mel ne rek ku wéré di di naan garab wala mu def loo xam ne bu ko kooram yàqu waaye ginnaaw ngir faju la koor ga dana yàqu waaye du ci am bàkkaar waaye nag dana fay bis kii moom de laaj mu ne ndax dagan na ci jàngalkatu alquran mu tere ay dongaam yu ndaw ñuy woor bis yi ñuy jàng ndax xam na ne bu ñu wooree bi yi ñuy jàng seen doole day néew waaw xam nga gone moom woor waru ci mazhab bi dañuy wax ne dee su ko ko digal waaye it nag dañuy wax ne dee su ko ko tere jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi seeni gone dañ doon woor ñu leen ko xem loolu sax waaye nag du leen ko digal waaye bu ñu ko bëggee def duñu leen ko tere xanaa lor am def naa ne bu fekkee ne gone yi bëgg nañoo woor di jàng yar na sëriñ daara bi wàññi sax li mu leen di jox ci koor gi ndax ñu tàmm koor moom aw yiw la xanaa nag koo xam ne bu wooree lorul kooku moom dañ koy digal ndax ab julit wërta lor rawatina koo xam ne jaamu gi muy def sant guy ko waaye bu fekkee mën nañoo woor bu ngoon te duñ lor xëy na néew dooleeg yeexa mokkal la kon na leen dimbale wàññi li leen doon jàngal bind bi ci koor gi ngir ñu mën a tàmm jaamu yàlla waaye mën a wéy di jàng itam loolu mooy li gën ci boobu waaye tere leen ko moom li ko war a waral rek mooy muy doon loo xam ne leen di lor leen kii moom dane ku dugg ci jàkka lu jiitu takkusaan walla lu jiitu tisbaar ndax day nuyu jàkka ji ñaar rakka wala day julli ñeent rakk yi naafil yi jiitu tisbaar wala takkusaan yéene waale ci nuyu jàkka ji waaw xam nga dañoo sant ab jullit bu duggee ci jàkka ci waxtu wu naafil te mu fas yéene toog ci ji balaa toog na julli ñaar rakk day mel ni foofu lislaam li soxla rek mooy nga julli nga julli kon soo duggee ci jàkka ji daal di julli ñaar rakk yi jiitu yi dawal taxaw na taxawaayu tax tahiyatul masjid li ñu bañ rek mooy nga dugg jàkka ji toog te jógoo julli moo tax sax bu daje woon ak ñu taxawal julli farata boo ko yéenee da nga am ci farata da ngay julli farata yéene wala ci tahiyatul masjid da ngay am tiyaaba ndax li ñu doon rek nga dugg jàkka ji toog te julliwoo yow nga dugg fekk ñu taxawal kon bu dee am yeneen julli yu mu bëgg a julli bu doon fajar tey mu ñëw ci jàkka ji julli ñaar rakkay fajar baax na bu dee yeneen waxtu yi mu ñëw daf dawal njëkk tisbaar njëkk gee wala yu mel noonu dawal boobu muy dawal taxaw na taxawaayu tahiyatu masjid jërëjëf kii day laaj mu ne xele boo xam ne yaayam da ko boot nee na xele bi faj aajo ci yére yim sol ndax bu yaayam dee julli bootaale ko julli yaay gi dina wér bu yaay ji yégée ne xale bi defaru na fekk mi ngi ko boot bu jullee julli ga baaxul ndax dafa julli te amul tahaaratul xabas ndax laab ci sobe mooy bul yanu bul taqu sobe ci sa yére ak sa yaram ak barab bi ngay jullee waaye bul yanu sobe yi soo bootee gone goo xam nag ci biiram xëy na lañ ko muure wala boog lañ ko defaree sobe sa wàcc na ci moom yaa ngi yanu sobe moo tax ku boot gone bu julli jotee war naa nemmi ko ba xam def na dara wala de bu defee dara nga wàcce ko julli wala boog nga defar ko ba noppi door a julli su fekkee nag xamu ko julli ne ba sëlmal door a yëg ne moom kat ndeke doom ji dafa defar woon su boobaa julli ko baax na waaye nag bu waxtu wa jeexul da koy baax dañuy wax ne tahaaratul xabas ab charte la ci wéru julli waaye ci kaw nga fàttaliku ko te man ko def nag comme fàttaliku ko ba sëlmal day mel ne rek yëgu ko kon julli ga dana baax waaye su yëgee ne xale bi defaroon na moom du julliwaale ànd ak mu ban xale bi bu ko yëgut ba sëlmal julli ga baax na waaye sopp nañ baa ma ko soxtoo jéem kii moom da ne koo xam ne da doon jëflante benn banque nee na bi muy tàmbali di jëflante ak banque bi xamutoon ne banque bi ci riba lay dox ginnaaw bi mu door ko xam mu ne ndax bu xamee ne banque bi ci riba lay dox da ko war daal di bàyyi ca saasa wala déet. waaw ñaawteef moom saa bu jàmm bi xamee ne lim nekk du noonu saa si da war bu fekkee ne man si daa génn ci saasa bu dee am na tënk-tënk yoo xam ne faaw mu topp ba mu jeex danañ ko jéggal mu topp tënk-tënk waaye daal saa bu xamee ne lii baaxut moom mu gën a gaawee ci nu mu rek da caa war a génn ndax ak mooy yàlla moom kenn du ci nekk yëg na yaa ngi ci nga mën caa génn te génn ci loolu jaadu ci ab jullit kii mu ne ndax sos banque boo xam ne banque islaam la ci banque boo xam ne day dëppoog njàngalem lislaam ndax dafa nekk loo xam ne ñëpp ko war a def bu ñenn ñi defee mu wàcc ña ci des wala dafa nekk loo xam ne dundinu askan wi moo ko laaj jamono ji ñu toll. waaw sëriñ yi xam nga ay jullit dañ leen a sant ñu dund seen diine ci wedd yëpp ci seen i jëflante ci seen digg seen borom seen digg seen morom jàmm. jëflante ci wàllu alal nag ci la bokk da ci am lu ci yàlla bëgg am lu ci tàgge kon fexe ba nit ñi di dund ni yàlla bëggee moom warteef la ci ñëpp maanaam ñëpp ñu man war nañoo dox ci ginnaaw da aajo daa jëm ci ay banque ñu gis ni banque yu bari yi fi nekk ci riba lay yëngu bu fekkee ne bank bu yëngu ci riba mën naa am warteef la ci jullit ñu fexe mu am ndax ñu mën a sàmm seenu jëflante ba ni ñuy wute alal dagan ndax alal ju lewut lu mat a moytu la sëriñ bi waxoon nañu ne képp ku lekk lu lewut da ngay mu yàlla man akalal xaraama asallaaha habba am kari waaye booy lekk lu lew faaw nga topp yàlla wa man akalal xaraala ataa allaaha habba am kari kon nag fexe ba li ñuy lekk lew bu fekkee ne jëflanteeg banque mënta ñàkk te mën nañoo am bu tegu ci yoon bu baax nag but bu tegu ci yoon war te bi lay doon ci kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb intérêt banque yi nga xam ne day jóge ci compte yoo xam ne nit ki dafay denc alalam kepp rek waaw xam nga dañuy wax de bu fekkee ne nit ki amut fenn fu mu denc alalam fu dul banque fu denc mu sànq kooku buy jëflanteeg banque day seet la gën a woyal fekkee ne compte boo xam dañ koy denc nga xam ne ñoom waa banque bi dañ ciy liggéey di la ca tegal ay intérêt bu baax yow ñàkk pexe moo la ci dugal waaye nag intérêt bu ko jël waaye nag bu ko bàyyi ci banque maanaam bu ko lekk waaye bu ko bàyyi ci banque ñu wax ne saa bu intérêt bi génne jël ko nga joxe ko ci almaslah la am sañ ko yóbbu foo xam daal njëriñul mbooloo mi waaye ko lekk te boo ko fa yóbbu it doo ci yéene maye doo ci yéene saraxe doo ci yéene addiye ndax moomoo ko da nga bëgg rek mucc ci alal bi bu ko bàyyee banque ba it ndax boo leen ko bàyyee yaa ngi leen di dimbale ci bàkkaar moo tax ku am compte ñuy wax compte épargne intérêt yu ci bànk ba teg da ko war a génne waaye boo génne bu ko lekk bu ko sa njaboot lekk joxe ko ci foo xam ne mbooloo mi danañ ko mën a jëriñ kii mu ne moom lan moo gën ci ab jullit muy jàng alquranul karim di ca ijjantu ak di ca sonn wala boog mu jàng ko ci traduction boo xam ne français la waaye boobu lay gën a xereñ ñaar yëpp lañ ko sant na jàng alquran ndax alquranul karim jàng baat yi jaamu yàlla la nu mu mën a fexe ba man ko rek loolu jaamu yàlla doonte xamut li muy jàng waaye dégg li muy wax it warteef la ci julli kon bu fekkee ne ci weneen làkk la ko mën a dégg mën na ko ci jàng ngir dégg maanaaya waaye nag nay jàng yaxub arab bi ngir jaamoo ko yàlla rek loolu kii mu ne aju jumaa ngi nii joo xam ne léeg-léeg ñu julli ajuma léeg-léeg du ñu julli ajuma mu ne ndax kon bu ñu fa jullee ajuma dina wér waaw bu fekkee ne ñàkk julli ajuma xam nga dañuy wax ne jumaa dafa am ay charte bu xasee taxaw bu ajuma dikkee charte yooyu bu ca benn manqué duñ julli ajuma bu doon dëkk boo xam ne xëy na nit ñi dañoo xëy tukki bala fa des motuñ fukki nit ak ñaar su boobaa duñ julli ajuma dañuy julli tisbaar su mbooloo mataatee ñu julli ajjuma kon bu ñu wax ne jumaa faw waruñoo génn xaka yi léeg-léeg ngànt am lu tax duñ julli ajjuma waaye boobaa nag danañ lu mel noonu la moom léeg-léeg ngànt am bu duñ mën a julli ajjuma waaye léeg-léeg sàrt yi mat ñu julli ajjuma julli fa dara nekk ci kii moom nee sunu dëkkandoo dafa am garab ci biir këram garab gi meññ waaye nee na car yi moom day ñëw ba ci sunu biir kër mu ne ndax bu garab gi meññee ñun mën nañoo watt ci meññeen ma di lekk te duñu laaj ndigal ci moom ndax garab bi kat xob yi day watt suñu kër ñun ñoo koy bale waaw garabu jàmbur de la meññet ba meññetum jàmbur ab jullit nag du lekk alale jàmbur ci lu dul borom kon suñ ci bëggee jariñu nañ ko tàmm bu fekkee nag da leen di loolu di taqal seen kër sañ nañoo wax borom garab gi ne na dagg car bi mbaa mu waaye nag sëñ ne tiim nañu mi ngi taqal suñu kër kon meññ mi ñoo ko moom déedéet meññ mi ñoom borom garab yooyu buñ ca bëggee jariñu nañ ko tàgg walla boog bu leen naree lor te mënuñ koo mun nañ ko wax moom it mu dagg car booba mbaa mu wëlbati ko ba du tiimati seen kër. kii mu ne bu fekkee ne moom day jaay ci place waaye day am yenn marchandise yoo xam ne amul. njëg bu sax njëg gi mu doon lii léeg mu doon la te mën naa yàgg ci place bi lool te du jar mu ne kooku su dee génne azaka nan la koy xaymaa ak lan mooy atteb at yi nga xam ne borom place muy commerçant bi daf ko doon génne azaka ci xaymaa ko njëggam jënde waaye xaymaa woo ko njëgg mi jaay fi mu toll waaw ah, xam nga suñu Cheikh asaka mbokk yi war nañoo xam ne jaamu yàlla génn asaka du business kenn du ci wax perte ak ñàkk perte génn asaka perte maa ab jaam buy jaamu yàlla dañoo sant jaam bi buy génn asaka bu fekkee day yaxal bu waxtu génn asaka jotee day xool li mu yor ci xaalis li mu yor ci ay bagage xaymaam la ñuy xool ndax dañoo bëgg a xam alalam fu mu toll bagage bi nag li muy jar mooy xaymaam li muy jar tey nga xam ne boo ko doon jaayee doo loru yow ku ñëw ne la jaay ma nga sañ koo jaay jëm ko loolu moo koy xayma ndax mooy li nga am alal li nga am lañ bëgg nga xam ñaata la tey tey tey bu ko defee nag nga xool lu ci asaka nga génn loolu moo tax bàyyi xel du rek jënde woon naa ko nangam ndax xam nañ ne xayma day soppi léeg-léeg nga jënd marchandise ci nangam ñu dox tuuti mu daanoo bu matatu wala mu yëg ëpp ci yow liñ lay xolloo mooy sa alal yow mi tey jii luy sa alal kon bagage bi tey jii luy xiimaam bu ñu ko doon jaayee ci jaay moo xam ne lu jaay ñàkk pexe loo ci loo ci man a am loo ko doon jaay naa ne pour ko jox nga jaay ko loolu lañ joxe su ko defee nga bu dee lu lamb yi lu mu yàgg-yàgg ci masal bi dañuy wax ne alal ju lamb sa alal fii yaa moom saa bu njëg ñëwee nga jaay ko bu at at mu jot da nga koy xëy donte nag am na ci biir mbay ngeen bu ñuy wax ne bu ko lambee ay at mën nañ koo jàppe alal yi lex nga xam ne léegi dootoo ko limaale saa bu jaree nga door ko génne asaka loolu am na ci ko waaye lii al mu'tamad ci njëriñ moom mooy alal ju lambu ak ñi ci des ñoo yem saa bu asaka jotee xay ko génne ñu bàyyi xel nag ak jaamu yàlla la perte ma amut bu fekkee ne daa am koo xam ne da doon xayma ci la ko jënde woon ay at te xamu ko loolu njuumte la yonentu ay salaam noonu na sama waxeet jéggal nañ leen seen njuumte ak luñ fàtte ak luñ leen gàx ñu def ko ci seen jabaay su boobaa day jàpp ne njuumte la woon xamuñ ko woon yàlla jéggal nañu ko incha allah waaye daal ab jullit buy xay moom alalam lay xool tey jii sa alal du toll moo tax ñuy wax sax bor yi nga xam ne dañ la ko ameel te waxtu fay ko jot te nga am yaakaar dañ la ko fay donte amu ci yàqi waaye yaakaar dañ la ko fay bor yooyu dañ koy xayma wala génne li nga moom la loolu moom mooy la ci borom xam wax seen cheikh kii moom nee na moom médecin bi daf ko wax ne ko dangay ngay bàyyi koor gi moo gën ci yow mu ne kon su boobaa nu muy def kon bu wéree ne médecin boobu ab jullit bu xam daraja ji koor xam fa yàlla ba nag mu xool ko xam ne kii wóor baaxut ci moom boobaa sañ naa jëfandikoo digal loolu ndax nag laaw dara wala dara waaye nag faw mu dem ci docteur boo xam ne xam na luy koor fi ko yàlla teg ne nit ki gënul ci te fekk man baax na man mën na ko def du ko wàññi dara xàmmee na yooyu loolu mën na bàyyi xel ndax am na koo xam ne ay koor yu ñorul moom day jékki-jékki jàpp rek nit ki ñàkk a lekk ñàkk naan baaxut fekk mën naa woor ba woon du ko wàññi dara waaye bu leeree ne ko wax xam na moo yu mel noonu docteur bu nekk ak julit bu xàmmee lañ ko war a laaj bu la seetee ba nga xam ne woor baaxut ci yow xamal ne baaxut teew yow nga dog ba ba wér bu mën a fay su wéree di nga wéyee ba ba faaw nag war wàcc na suba dañuy sopp ci yow ngay lale bis bu set nga joxe am mbudd kii mu ne moom lan mooy àtte góor goo xam ne dafa takk jigéen waxanteeg moom ne ko da koy bàyyi seen kër mu wuyal am njàngam nee na ñu dem ab diir nag góor ga bëgg soxna si ñëw ci kër gi soxna sa lànk ne du dem ne ko da koy bàyyi mu toog su ko mënul mu bàyyi ko mu fase ko soxna si wax na dëgg yonent bi nee na al muslimuuna ala shurutihim ab jullit lu mu sàrtanteeg mbokkum jullitam te lu mu lislaam di tere da ko war a sàmm ginnaaw ba ngay bëgg soxna si da ngaa jubóog moom ci na nga koy bàyyi seen kër muy jàng loolu ngeen jubóog boo xëttee sàrt bi bu ko neexee ne la may dem dootu mooy gisee moo tax lu mel noonu ku ci dugg na dugg ci loo mën ndax sàrt boo xas sàrtanteeg moom da ko war a wéy sàrt boo xas sàrtanteeg moom da ko war a wéy al muslimuuna ala shurutihim kii moom nee na jigéen la joo xam ne chrétien la dafa dugg ci lislaam waaye ay waajuram ñoom tuubuñ ña ngi ci seen diine mu ne su demee ba bëgg dugg ci néegu sëy kan mooy doon kilifaam jullit yi ñooy doon bu fekkee ne kilifa lislaam ma nga fa ne xasee tuub ay ci moom kilifteef ay jullit ñoo koy fam nekk ba amee kilifa bu yilif foofa na dem ci ko bu dul loolu fam nekk jàkka ja fa nekk ilimaan ya fa nekk na dem ci ñu may kii moom ci alquran lay laaj mu ne lu sunu borom wax ne la am la anna jahannama min al jinnati wannaasi ajmain moom lay laaj lan lay tekki ak ndax jinne yi dañuy am place ci sawara waaw sunu borom de moo wax ne waat daa waat ne dinaa feesal sawar ak àjjana danaa feesal sawara ci nit ñi ak jinne yi maanaam sawar dañ ko di boobu fees ñëw na ci xadis yu wax ne sawara yàlla dana koy sotti ay nit ki jinne mu naan hal min mazid ñuy sotti ñuy hal min mazid ba suñu teg ko ndëggoom mu door ne doyal fees day fees daal di ñëw doye ji boppam àjjana it day fees ñee ci war da ñëpp bu ñu ci demee ba mu des borom bi subhanahu wa taala dana bind ay mbindeef yoo xam ne day di bind rek yóbbu leen aljana kon bu yomal xaamee ñaari kër yëpp ay fees sawara nag ña koy fees mooy nit ñi ak jinne ah kay jinne yi am nañu bërëb ndax jinne yi ñoom nit ñi ñooy ñi yàlla takkaliif wa maa xalaqul jinna wal insa illa liya'budun ñoom la yàlla boole loolu kon jaamu yàlla bi ku ko ci tënku wéy ci wala ko ci sàggane te amoo yàlla faatoom dem sawar kon sawar dana fees ay jinne ak nit loolu su borom kii mu ne xadis bi nan lañ koy déggee lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne kenn ci yéen bu déggee ñuy noddu te fekk ndab laa ngi ci loxoom bu mu bàyyi ndab la li fekk muy faj aajoom ba nopp mu ne ndax loolu kon dañ ciy déggee ne ku doon xadd dégg ñuy noddu wala dégg ñu ne jàpp jot na da ngay àggale ba la nga lekk la nga bëgg a lekk jeex nga door a bàyyi. waaw ah, sëriñ Cheikh xadis boobu de lu mën a taxaw la ndax yenn ndaw ko ndaayee xaw a mel na ñoom dañ ci bëgg a laytoo. jàppale nit ki mën naa lekk ba noppi rek borom xam dañuy wax ne xadis bi dañ cee jublu ñaare koo xam ne noddukat boo xam ne ba muy noddu noddul ci ginnaaw bu fajar tàmbee comme ni ma waxoon ci beneen xadis ne bilaal buddi lay noddu man ngeen a lekk ibnu um maktoom mooy noddu suba bu xasee noddu bale waaye ci masub maay dañuy wax ne boo tibboon ab tib sex ko ñu ne waxtu wi tàbbi na boo ko wannee sa koor yàqu ay fay kafaara na yàqu dañ ko boo ko yàbbee nag koor gi baax ndax xadis yeneen yi bari yu wax ne saa bu fajar xasee tab bi lekk xaraam bari la moo tax ñu ne xadis bi ni ko war a déggee mooy koo xam ne day day nodd waaye fekk waxtu wi tabbeeku day jege way tabbeeku ku mel noonu la wax ne mën naa àggale waaye bu fekkee ne moom leer na la ne waxtu jàpp jot na fajar jot na boo lekk tey maa naan da nga fay kafaara léegi ci cooba sa ko def. jërëjëf sëriñ Abdou sëriñ Mbacke kii nee na benn waaye gi nii boo xam ne dafa tukki bàyyi fi soxnaam kenn xamul ci moom dara kenn xamul ci mu ngi dund wala dund mu ne kon soxna si lu toll nanu lay toog ngir mën a sëyiwaat ci geneen góor. bu fekkee ne waa ji dem bàyyi na fi am dund. xam ne soxna si mu ngi dund ci li borom këram bàyyi te ragalut mooy yàlla na dem ci yoon buñ gëstoo gëstu gisuñ ci moom dara ñu xaar loo ko ñeenti at bu ñeenti at jeexee nag ñu jàpp ne tas am na mu iddawu iddawooyu ko faatu bu idda jeexee mën naa amal benn borom kër bu yàlla dogalee borom kër bu njëkk ba feeñ fekk borom kër bu ñaareel ba jote na ak moom ku njëkk day ñàkk waaye bu fekkee nag daa iddaw ba noppi rek ñu mayee koy borom kër bi gisagu ko ku njëkk ka feeñ dañ koy delloo ko njëkk loolu mooy bu fekkee ne moom kat dem na xamuñ ci moom dara waaye lu mu dunde na ko fi te soxna si mën naa muñ du mu yàlla waaye bu fekkee bàyyi fi ab dund wala soxna si ragal na ne bu toogee dana mu yàlla day dem ci yoon ñu tas si mu iddawu idday kuñ fase ko kenn du ko tegal ay ay at wala daal dañ koy tas yoon tas ko bu idda yi jeexee mu dem si waaye ki mën a muñ te ab dund na fi kooku la ñuy xaar la ñeenti at kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa nekkoon ab jullit yàlla dogal mu génn ci lislaam dellu siwaat nag duggaat ci lislaam mu nekkoon kon ndax lam jotoon a def ci lu baax laata muy tubbi loolu da koy ñàkk wala déet waaw ci mazhabu imaam day borom bi daa wax naan la in asharta la ku tubbi génn ci diina lu baaxam lépp lépp yàqu bu tuubaatee day jàpp ne day tàmbaliwaat bu fekkee ajoon na mag bu tuubaatee day jàpp ne aj màkk bu beesoor na ndax lam dafa lépp yàqu na loolu mooy mazhabu yow mali da wax ne saa bu nit ki tubbee lam defoon ci lu baax lépp yàqu kon bu duggaatee ci lislaam wartee fiyu xëy na dee su ko fayloo moom julli yaag yeneen yi ndax day mel ne kuy tax dugg ci lislaam waaye day mel ni ajagut màkk dafa gut ci wartee fi dara ay ab ga aj gam ajoon tub bi ko yàqu na kon war a ajaat loolu mooy masa bu ñoom Malik dañu Cheikh kii mu ne ndax dagal na ci commerçant mu jël xaalis bi ci client bi door a dem nag wuti marchandise mi ngi koy jaay nga xam ne mën naa toog weer wala ñaari weer marchandise mi dooru ñëw mu door koo jëbbal client bi ndax loolu dana dagal waaw suñu Cheikh loolu mooy li tuddee salam am njaayin la woo xam ne lislaam nangu na ko mooy yow xam nga liy cosaan ci njaay njaay mi moo fii nekk njëg gi teew mbaa mu bañ a teew waaye bu dee salan nag njëg gi mooy teew njaay mi du nga soxla dugub masalan gis ab baykat ne ko man damaa soxla nangami ton ci dugub ngeen waxaale ba juboo nga jox ko xaalis bu nawet ba sottee la ngeen waxaale mu andil la salan nag nit kuy tukki dem ci ay réew di jënd ay marchandises man nga ko jox xaalis nga bëgg nga jëndal ma nangam ak nangam ak nangam waaye dañuy wax ne diggante bi gën jaa néew na mat fukki fan ak juróom maanaam saa bu ñuy joxee xaalis di séentu am njaay am njaay diggante bi na mat fukki fan ak juróom su amee loolu moo tudd salam ci jëflante yi dagan la bokk xeeti commande yi bari dugg jox nit xaalis ne ko dama bëgg bu ñu àggee nangam li am solo mooy na ko indi bu doon ko doon bay li ñu bañ nga ne ko sa tool sàngam bi ne ko daal soxla na nangami ton ci ceeb wala dugub wala ci bopp su waxtoo jotee moo andil la moo xam fu mu ko sañ nga ko jox xaalis moom bu waxtoo jotee mu andil la kii mu ne ndax dagal na ci étudiant bu nekk ci université bu grève amee mu dem ci restaurant yi lekk te du fay te xam na ne bu lekkul foofu nag du am lu mu lekk. ci lislaam sëñ Cheikh ak tooñ deesu ko faye ak tooñ ak tooñ. kenn du ko fajal tooñ ab julit lu muy lekk daa warul dagal bu la leer nañ ni fii ngir nga lekk fi joxeel nangam joxe woo loolu rek lekk mu yaa ngi tooñ donte yow dañ laa tooñ ba tax nga gerew xëy waaye na nga jàpp ne tooñ gi nga tooñ tooñaat du ko faj da dem ci yoon ñu fexe ba jox la sa àq waaye waroo waroo tooñar bi wala nga def geneen tooñ yow itam jërëjëf sëñ Mbacke Abdourahmane fii mu ne ñaari laaya yi suñu borom wax ne wa jaa rajulun muminun min ali firawna yaktumu imaana ak geneen laaya yi suñu boroom wax ne wa jaa rajulun min aqsal madina mu ne ñaari rajulun yooyu mu tudd seen tur la bëgg a xam waaw ñoom day li ci boroom xam-xami tafsiri wax nee nañ kenn am na ñu wax ne kenn ke doom doomi bàyyi firawna la woon am na ñu ne xasaqil la tuddu am ñu ne chamoon la tudd am nañu wax yenn tudd mooy ki doon nëbb ga moom bi bi bi Firawna ne daruni aqtul Musa ne da koy rey mu yëg ko ci la doon wax ak moom naa ko bu ngeen ko moom li muy wax bu dee dëgg la mbirama bu dul dëgg it moom moo koy togg kooku nañu wax ne Xasaqil la tudd doomi bàyyi Firawna jërëjëf sëriñ bi kii mu ne lan mooy bu góor goo xam ne day waxtaan ak jigéen ju dul soxnaam ci guddi gi weeru koor yi di ca bànneeku góor gu jubade la sëñ Cheikh bu dul koor sax nag waxtaan ak jigéen joo xam ne ab jàmbur la ci yow waxtaan boo yëg bànneex loolu ak jubadi ak julit daf loolu ndax loolu noonu mooy jur njaalo te njaaloo day yóbbu ni sawar ndax julit day moytu kon woor ak budul woor bu koor dikkee day gën a doy waar day gën a tar day gën a diis waaye nag di wax ko yëpp lañ tere ngay bànneexu ci kàddu yi soxna soo xam ne du sa soxna loolu jur da kii mu ne ndax dagan na ci koo xam ne dafa am lañuy ñuy tuddee salas maanaam tuur ndox muy faral di génn lu bari du ko mën a téye ndax kooku mën naa jiita julli ak ndax dagan na mu nekk ci jàkka ji toog fa diir waaw sëriñ Cheikh de li borom xam wax ci ku yore salas mooy nga sobe suy génn mën naa doon gaanuwaay mën naa doon ngelawal mën naa doon masi mën naa doon mani mën naa doon yu bari sobe soo xam daal day génn te mu mënu ko tey kooku bu julli jotee day jàpp rek dem julli waaye nag sib nañ muy jiite ku loolu dal moo ku yor ay góom deret ji génn mën na ko julliwaale waaye dañuy sib mu jiite ku loolu dal toog ci jàkka yit sañ na ko bu ko leeree ne maanaam waajal na boppam ba nga xam ne lii génn ci moom du taq ci tàpp yi su boobaa mën naa tool ci jàkka ji waaye bu ko leeree nag bu toogee ci jàkka ji taqal jàkka ji kooku dañoo toog dañuy wax sax ne ñooñu dañoo bëgguñu ñu a julli si bu doon ajjuma nañ bàyyi ba ñuy nodd nodd bu mujj ñu door a julli si ndax ginnaaw mu daam ngaan te mën naa bu dikkee lor am te mun lor jàkka ji wala mu indi fa xet kooku na yeex a ñëw julli si waaye nag sib nañu muy jiitu ñu waaye bu dee ay moromam nag mën na li ñu waaye nag ñoo xam ne loolu dalu leen sib nañ mu leen di jëriñ kii dane moom laaya ji daal nuñ koy déggee azani laa yankixu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu laa yankixuha illa zanin aw mushrik mu ne ndax dafa bokk ci laaya yi nga xam dañu ne folli li sunu borom wax ne maa nansax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha mu ne su fekkee ne àtte bi mooy am ba léegi wala amatul ban aaya moo ko dindi waaw li ci ulamaaw tafsir wax de wax yu wuute la bokk na ci ñu wax ne dañ koo nasax wa ankihul ayaama minkum wa saalihiina min ibaadikum moo ko wax loolu waaye ñu ëpp ci borom xam nag nee nañ nasku li muy wax nag mooy euh, nit kuy njaalo du takk mukk am njaalo ko lu takk mukk ku dut am njaalo ko maanaam xam ne diw mii day njaaloo nga takk ko te yow nekkoo njaalo ko loolu daganu ci bu tuubee nag tuub na waaye kiy njaaloo te tuubagut am ñu jàpp ne yan ki xaw ji waxtu lay tekki maanaam jaxasoo moom ndax kiy jaxasoo ab zaani kooku zaani yàlla wala koo xam ne garaawal njaalo ab mushrik la moom jàpp na ne ayut nee na ñooñu rek ñooy ànd waaye njaaloo koo xam ne day njaaloo te tuubu daal euh, buy denc ci soxna moroom dong la war a denc waaye dëgganut ab njaalokat bu kenn di ko takk ku dul moom dañuy wax ne aaya bi nekkul luñ na saxal waaye ŋàññi la ci ne loolu ku tuub nag mu jeex ñu jéggal la waaye fii ak tuubul moom ab jurub dagan muy takk ab njaalokat te xam ne kii day njaal kii moom nee na ndax dagal na ci ab jullit bu jigéen boo xam ne day liggéey ci kër koo xam ne nii ki ko moom daal ab kercee la ne ndax jullit bu jigéen boobu ndax dagal na muy toggal leen léeg-léeg yàpp woo xam ne day am mbaam mbaam xuux wala mu leen defaral gato yoo xam ne dañ koy jaxaseeg sàggara waaw ci lislaam ne dañuy tere jëflante ci dimbalante ci bàkkaar wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan lekk mbaam dafa xaraam naan sàng dafa xaraam moo tax ak jullit waru ci dimbale kenn waru ci jàppale kenn ne woon jot li ma ko sax waroo ko jot boo yoroon oto mu jëla ko sëfloo jëla ko yóbbu ci barab sañoo ko ndax yaa ngi koy jàppale ci mooy yàlla moom itam di leen toggal wala di leen defal loo xam ne dañ cey mooy yàlla loolu dëgganut ndax mu ngi leen di jàppale ci mooy yàlla loolu lislaam da koy tal kii moom dafa laaj mu ne lan mooy àtteeb euh, jëflante bi ci wàllu koo xam ne day wax ne ko jëlal lii nga jaayal ma ko ci nàngam lu ca tege rek loolu mooy sa pay loolu yaa ko moom ci masa dañ ko tere ndax loolu neexal la waaye neexal lañ caa sàrt nga xam ñaata la maanaam waa ji boo nee ko lii dafa koy jaayee junni lu mu tegal yaa moom mun naa dem jaay ko tegalu dara kon day perte ay effort te la mu doon sonn sonatul ngir yàlla dañoo bëgg saa booy liggéeyloo nit nga ne ko nangam laa lay jox nangam laa lay jox pourcentage sax boo koy wax da ko wax li muy jar ne ko daal junni lay jar yaa moom 5 pour cent booba xam na li mu ci am ko ne loo ko jaayee baax na yaa moom nangam pour nangam pour cent ak booba ba tey mu ngi dem te moom xamagul ñaata lay am ci lislaam ki ngay jëf jëflanteel muy ab ajir booy liggéeyloo di ko fay wala muy koy neexal waaye daa war a xam ñaata lay am bala ngeen a tàmm bu dee lii nag moom day tàmbali te xamuñu at la naa am sax du am dara ndax su jaayee jaayee te mënta weesu loola du am dara moo tax ci mazhab Maalik dañ mooy atte jigéen joo xam dañ koo jëbbal borom këram ba xëy ne moom kat ànd naa ko ndaw ñuy xëy di feetu loola loola sëriñ Cheikh atteem ci lislaam ci ñaaw yi nga xam ne lu ma tamoytu dafa am yoo xam ne sutura la teg xëy na nag suñuy aada la waaye du aada ju rafet aada yi nit ki am nag ndaw ak amutul ndaw yooyu ci sutura la war a am man satara musliman satarahu llah ndax saa bu ñu waxee kii am na ko kon am na ci pegg ba koo xam ne bu ñu ko defalul dañuy wane ne kon da ko amul kon ña ngay xotti sutura te yu mel noonu nag lislaam bëggu koy xotti moo tax yooyu yëpp du aada ju rafet du luñ gërëm te it nag doonutoon nag luñ meen ci suñu barab yi moom moo tax yi moom julli dañ cee wane yëpp ay ñaawteef buntu boobu buntu suturaal bu ma foraa ak lu mën na xew nañ suturaal te ñi xam-xam nañ mu jeex kii day laaj mu ne ñu firil ko ko yaa ayuha alladina amanu man yartadid minkum an diini fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibuhum wa yuhibuuna azillatin alkafirin waaw aaya ji de borom bi daa wax ne yéen ñi gëm yàlla ñu wax na ci ay nit ñoo xam ne dañ doon wax ne wax ne sama mbokk yi dañoo nar a tubbi borom bi ne leen ku tubbi ci yéen dellu ginnaaw génn ci diina ji am ci duggee du wàññi yàlla dara yàlla dana ne nit ñoo xam ne yàlla bëgg na leen ñu bëgg yàlla ñu laa biir lool ci jullit yi waaye soxor loolu ci kaw yéefar wane ne moom diina ji daal neexulut kenn ku ñëw dugg ci sa njariña ku génn sa lor ku génn sa lor maanaam kii mu ne lan mooy àtteeb jigéen joo xam ne da doon mballu ci bëcc weeru koor far yàlla dogal boroom këram bett ko boroom këram bett ko ak mu ñàkk ko bett mu loolu dafa xaraam maanaam nit di fo ci ay cëram ba yëg boppam dafa xaraam muy góor muy jigéen doomu aadama su bëggee faj aajo day am soxna ñaari bunt amoon soxna ak moomeel moomeel amut léegi benn bi des xomadi bu taxaa war a dalika fa ulaykumul aadul kon ku weesu lool rek ci aadul nga ba kon di fo ci ay cër ba faj sa aajo loolu aw ñaaw tif la bàkkaar la bu rëy moo tax nit waru koo def bu ko nit yéegee bu ko yóbbu bu dee ci bëccëgu koor moom kooram yàqu na day fay ba day kafaar dana fay bis ba noppi kafaara woor ñaari weer wala leel doom benn fukki miskin loolu moo tax bàyyi xel na euh, jërëjëf kii mu ne ndax ndox moo xam ne cafka gi dafa soppeeku ndax dañ caa def daal beneen produit boo xam ne produit chimique la waaye boobu bu laab mu ne ndax ndox moom buñ ci jàpp waaw bu fekkee ne nit a ko ci def nga xam da nga indi ndox mi yow def ci loo xam ne ngir laabal ko la waaye nag bukkut ci moom ndox mi dëkkuñ te soppi na cafka gi boobaa ndox mënut a laab mënatut laabal donte laab ndox mënut a bu fekkoon nag usine ba fa ndox may jógee fa nekk nga xam ne yow boo ci jot man nga ci jote loolu moom dañ ko jéggi ndax dañ koy jàppee loo xam ne moom ndox ñu dëkk léegi lu mel ne eau de javel ñu def ci ndox mi ne ca forage ba lañ ko defee mu ñëw ci robinet bi saf ci ndox mi dañ koy jéggi amma yow da nga tànq sa ndox ci teen wala ci robinet jël ordre sa def ci bu cafe gi soppi ko mbaa xet gi mbaa couleur bi mënatu jàpp mënta laabale bi kii mu ne léeg-léeg duwaan day jël ay bagage di ko jaay nit mu ne ndax loolu kenn am na sañ-sañ du ko jënd ci ñoom waaw bu fekkee nangu ko tegu ci yoon bu fekkee nit koo xam li mu def waa da koy tere te li tax waa tere ko mooy day lor nit day lor réew kooku ñu ko mbugalee jël alalam buñ ko jaayee sañ ko jël amaa koo xam ne dañoo nongu alalam ci kaw ak tooñeel kenn warut jël alal bi ndax soo ko jëndee yaa ngi dimbalante ci bakkaar faaw ñu xàmmee alal di ñu ndax ci teg ci yoon la tegu ndax dañoo teg luwaa yoo xam ne képp ku xat réew mi ngay lor bokkute nag bëgg a aar am nit di ko yombalal di xeex ni ci des loolu tooñ la moom waaye su leeree ne njariñul mbooloo moo tax ñu di ko tere ko ku dem xëtt ko kooku daa tooñ soo waaye suñu nangoo alalam bu ñu la ko jaayee yow sañ nga ko jël waaw ñu xamee ñaar yooyu seen seen kii mu ne lan mooy àttab koo xam ne day jaay yi ñuy naan wala sax yu ñuy lekk ci bëccëgu weeru koor waaw bu fa xam nga koo xam ne moom wóor wóoru te amul ngànt ci woor day nga xam ko waroo koo dimbale ci ak lekk mag naan loolu nag neexut a xam nit mën koo gis xamoo ngàntam mën naa jënd am naa nit fekk lépp ko léegi da ko bëgg a yóbbu waaye saa bu la leeree daal ne kii wóoru te amul benn ngànt ci woon kooku moom bul jàppalanteeg moom ci buy mooy bu ko jox lekk bu jox naan waaye bu gisee rek xamuloo ko dara moom rafetam jot ci ne boo gisee muy lekk am daa am ngànt waaye bu la leeroon moom wala mu wax la luy firi loolu nga xam ne moom amul benn ngànt kon bu ko dimbalee ci ndax buy lekk ka naan boobu nga am bakkaar te loolu boo ko ci dimbalee yaa ngi koy dimbalee ci bakkaar kii nee na moom lan mooy àttab koo xam ne dafa tàmbalee julli jàng aw saar ñu sabbal ko mu daal di wëlbatiku jàng fatiha doora wëlbatiku ñëw jàng saar wala sax jàngatu saar mu ne kooku lan moo ko war ci loolu mu def waaw bu fekkee dafa tàmbali saar wi ñu sabbal ko mu jël fatiha nopp baa mu war saar dara war ndax dañuy wax ne jàng aw saar sunna la waaye mu ñëw ginnaaw fatiha dañuy wax téere ne boo njëkkoon a jàng aw saar doora jàng fatiha boo yemee foofu da nga sujjoo xam la sa la dañ lay jàpp ne jàngoo saar waaye soo baa moo saar wi nag dolli gi nga dolli saar wu njëkk ay loolu dolli ko mu solo la kenn du kenn dee su ko sujjootal waaye boog jëru sujjootal kon moom bu fekkee ne bi biñ ko sàbbaalee jàng na faatee baamuwaat aw saar wala mu jàngal beneen saar julli ga baax na te kenn sant ko dara kii nee na moom dañ koo dénk alal mu jëlaat ko denc ko ci ab kontam mu ne kon ndax mën na caa soppaxandiku ci alal jooju waaw daa bokk li ñuy tere de soppaxandiku ci alal ndénkaan ndax wóoru mën nga ci soppaxandiku ci commerce par perte su boobaa ay daan topp la waaye nag bu ñu defoon loolu bu am ci bénéfice dañuy wax ne bénéfice am moo ko moom ndax su pertoon day fay waaye daal nit la bu ñu dénkee wóoru la ba dénk la moom fexeel ba lañ la dénk saa yoo ko borom soxlaa nga ne ne la ne la nga ne ko waaye soo ko dugalee feneen nag mën naa jur mu soxla ko te doo ci jot te du ci man a jot loolu bokk na day dàqonte ak kóolute kóolute gi nga xam ne moo taxoon ñu dénk moo tax dañuy tere di yaxantu wala di sopp wax ko ci alal ndénkaan ci lu dul ndigalul ko dénk kii day jaay tiise yi nga xam ne dañ koy peese am nekkul lu ñuy natt mu ne kooku nan la ci génne asaka ko waaw xam nga kuy génne asaka xayma ngay xool bu dee ab bal bal bi lay xool luy xaymaam ñu ngi tey loo xam ne ku ko ci fayoon mu jaay ko loolu lay xool su ko defee nag loolu lay génnee loolu lay xool bu ko matee mu génne lu ko asaka euh, kii mu ne koo xam ne dafa woor di noyyi gaz bi nga xam ne mooy lacrymogène mu ne ndax loolu dana yàq koor gi wala déet jàpp naa ne bu fekkee ne jubluwu ko de si na ko yëgal ci pëndub yoon ak yu mel noonu ndax ñaar yooyu kenn jublu te jàpp mu ne gaz bi nag dafa am loolu lu dul ne am matière boo xam ne bu am liquide la buy dugg ci biir loolu bu amee nag bu xasee àgg ci bolique nit moom da yàqu ko bu mel ne ñi ñi ñi ñi ñi am feebaru asma wala yu mel noonu pompe yooyu moom am liquide buy dugg la li ci borom xam-xam ngir mu wax moom day yàqu ko loo xam ne day da lay jooyloo wala waaye aggut ci dugg sa bëli mën nañ ko yëgal ci pënd bu yoon ko su boobaa incha allah kii mu ne lan mooy àtte koo xam ne jigéen joo xam ne dafa woo dafa laab ci gis baax waaye jotul sang ba asamaan set mu fa yéene woon waaw xëye janaaba du yàq ko kon xëye sobe du yàq ko nit ki li gënoon fu mu sete mu sang waaye bu setoon ci bërëb waaye fas na yéene woor bu sanguwutit koor ga baax ni ki noonu ku àndoon ak soxnaam ci guddi sanguwut waaye fas na yéene woor bu xëyee woor ga donte nag li gënoon mooy nit ki bañ a taqoog sobeelu yàlla fu mu setee rek bu dem sangu waaye nag loolu dàqonti wut ak wéru koor gi moom kii nee na moom dafa tawat yàlla dogal koor ga jeex mu continuer ba koor ñëwaat te jotuta woor koor gi ñëwaat na koor gi jeex mu faatu mu ne kooku ndax mënees na ko koo fayal wala ñu leelal ko wala waaw ci masabu Malik dañuy xam ne julli ak woor yooyu nunguwut wuutal maanaam jaamu yàlla lañ yoo xam ne du caagee da nga naan dama koy defal diw nungu dool nit ki am lu mel noonu ba faatu te fayu ko ci masab bi kenn du ko wor loolu mooy masabu Malik ku amoon bëri julli ba faatu te fayu ko ko kenn ndax bu dee ngànt la moom jéggal ko bu dee ko tey digg ma boromam lay kenn du ko fay mooy koor la ñuy wax ci koor moom la wax ci julli suñu seex fii mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne jullig naafila gi da cee dab benn rakka naafila yi weeru koor bu fekkee benn rakka la ci am ilimaanam sëlmal moom day jóg indi beneen rakka rakka boobu mën na ko gàttal daal di sëlmal door dabe ji waaye du ca benn imaam day mu sëlmal julli naafila faw ñaar rakka lay doon kon bu amee benn rakka ilimaanam sëlmal bu ilimaanam jógee di tàmbaliwaate moom na àggale beneen rakka bi gàttal ko bu jàngee faatee jàng saar bu gàtt toog taaye sëlmal door a jóg nag fekk ilimaan jërëjëf sëriñ bi kii mu ne ndax dagan na ci nit muy chargé téléphone am ci courant jàkka ji waaw loolu de borom xam-xam yi ay wax yu wut lañ ci am li mu jàpp mooy chargé téléphone ci courant jàkk wàññiwu dara bu fekkee ne yow téléphone bi liñ ciy def farata la bu fekkee ne téléphone bi liñ ciy def farata nga xam ne lu ñor la waaye koo xam ne xëy na day sarse ab téléphone ngir di seetaan ay caaxaan wala wax lu amul njëriñ booba moom ragal ndax jàkka ji li fi nekk lépp wax waaye bu dee lu am njëriñ nag te doon lu tuuti loolu tasaamu la lislaam yàgg xam ci yu mel noonu waaye li ñu bañ daal mooy nga jël courant jàkka ji moom di ko yóbbu feneen ci misaal tey nit dëkk ak jàkka amu xew xëcc ay fiir ci biir jàkka ji ngir nag xew mi xew moom mu di mu jariñoo courant ndax loolu waqfu la kenn du ko jariñoo fu dul ci jàkka waaye nag ay sarse ay téléphone bu fekkee ne téléphone bi la koy wax farata la mbaa ñor waaye du lu ñu tere waaye bu dee lu ñu tere kenn wërta jariñoo courant jàkka ji bu ay film yu amul njariñ ak yu ay jeux yu amul njariñ yooyu moom du ko nag bu dee nag wax ay farata ndax léeg sax mu doon loo xam ne ñu ne ci jàkka ji dañoo soxla téléphone ngir liggéey su boobaa nag day dugg ci biir wax fi euh, kii mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu jariñu ci ndàmpaay joo xam ne attekat yi ñoo ko attee jox ko nit te teguñ ko ci dëgg lu tegu ci dëgg moom kenn ndax tooñ la ci amee daa am lu mu tëral am na tooñ yoo xam ne islaam xas tëral ne lii mooy daani kenn waru ko faa teggi di teg yeneen daan ne ku xas nit yàq ab der nañ ko caw kooku caw lañu sa daan kenn amul droit ñu ko fay ko xaalis wala nga di ko tëj wala nga def leneen li ñu sant ci lislaam mooy moo tax mën na bàyyi xel baax ak te yiitër di ci bàyyi xel diine ji nga xam ne moom la yàlla indi ne nañ ci dox te moo di njub ndax yàlla mi ñu bind moom ñu moo xam li am njariñ ci noonu ak li ñu dox fu mu ne fii la rek foofaa baax fu mu ne du foofa rek baax moo tax lu mat di bàyyi xel la ci yu a noonu sëñ Cheikh euh, dañuy tëje laaj yi nga xam ne day aju ci muurum koor te ñu toll ci waxtoom xam naa dañuy laaj rek atem muurum koor lan la waaw sëriñ Cheikh de muurum koor moom farata la ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal mu nekk ab saa boo xam ne nit ki da koy génne ci ab dundam jullit bu ne su weeru Ramadan jeexee ñu ne weer wi feeñ booba la muurum koor nekk farata képp ku fekk ngay dund te man dara muurum koor war na la moom nag sartuñ ci mu nekk ko wooma bisub iit boo amee loo añee yaag sa njaboot la ca des mu des dara la ca des muurum koor war na muurum koor nag booy génnee sa bopp ngay tàmbale say soxna say doom say way jur bu ñàkkee sa soxna yaa ko war a génneel muurum koor donte moo la ko alal say doom yu góor yaa leen war a génneel mburum koor ba ba ñuy màgg ba mën a liggéey sa doom yu jigéen yaa leen war a génneel mburum koor ba ba ñuy am boroom kër te borom kër ba man leen a dundal waaye ku may sa doom borom kër boo xam ne loxoom jotul ginnaaw li nag dundam du la wàcc bu dee mburum koor du la wàcc say waajur bu ñàkkee yaa leen war a génn mburum koor yooyu yooyu la war a génn mburum koor am maa ñi nga xam ne nag da leen di dundal ci coobare waaye yàlla sant la ko ñooñu génneel leen mburum koor warum gis koo xam ne ci këram ay taalibe ay mbokk ay doomi baayam ay magam ki rakkam ñëpp moo leen yor waaye yor googu lislaam sant ko moo ko coobarewu lu baax la ñooñu nag génne leen murum koor warul waaye ñi nga xam ne yaa leen war a dundal ñooñu lañ génn murum koor te sax nag ab saax lay doon saax nag gëstu yi ñu mujj def kërasaka yi ñaari kilo la ñu wax ak genn wàll yi bar ci ceeb bii nga xam ne moo not ci dëkk loolu la ñuy génne ko bopp bu ne bopp bu ne waxuñ nag nga teg ak paan ku dikk nag tegaat ci waaye da ngay lu toll noonu lay toll nga joxe ko njëkk ñuy dem ci jullikaay bi ndax suñ jullee ba noppi ku ko joxeeti amatoo yoolu muuru ko moo tax bu jant bi sowoon weeri feeñ mën nañ ko tàmbali jox ku ñàkk lañ ko jox nag koo xam ne amul lu lekk ci bis ba noppi nekk ab julli kooku lañ koy jox su ko defee Euh, li cosaan nag mooy joxe ko ñu joxe ko aw ñam moo ci cosaan waaye nag borom xoox yi daganal nañ joxe ko xaalis ndax léeg-léeg sax moo ëpp jariñ léeg-léeg rawatina buñ jàppee ne dañoo bëgg bisu iid bi way ñàkk yi bokk ci mbéj mi te xam nañ ne fi ni nii nit ñi li ñuy dunde euh, ci bisu iid du ak ceeb kon buñ ko xaymaa buñ ko xaymaa ñoom neuf cent francs lañ wax ne mooy bopp bu ne kon ku am ñaari kilo genn wàll yi war ci ceeb bi nga xam ne moo not ci dëkk bi moom ngay génneel kenn ku ne boo dee génnee xaalis neuf cent franc ngay génneel bopp waaye fexeel ba joxe ko nag bala nga dem ci jullikaay te jox ko ku ko yeyoo mooy ku ñàkk mën ngaa jël lépp na jox kenn mën nga koo séddale mbooloo waaye daal lu am solo loo xam ne day laabal aji woor ji te nekk xéewal ci day sax ku ko joxee njëkk julli joxe nga murum ko ku julli ba mu door koo joxe ab sarax rek waaye nag kum xas war du la wàññi maanaam nit ki murum koor war na ko mu sàggal bu joxewul bu jàllee bor la bu nekk ci loo sax lislaam daf koy topp ci mu war a fay lay bokk yépp daal bokk na ci yi nga xam ne lu am solo la euh, ci waxtu ñu toll muy jaamu yàlla boo xam ne nag yàlla ko santaane ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf kon koo xam ne da ko génn woon tey ci suba wala mu génne ko démb ndax loolu dina baax waaw fuqahaa yi daganal nañ mu jiitu ñaari fan ba ñett waaye nag ci kaw waay ko jox bañ ko lekk waaye boo joxoon ab faqiir démb mu añe ko moom mu dogoo ko tey te weeru fay yut nekkul murum koor ndax murum ko bis bee ko kon bu fekkee leer na koy denc moo tax dañuy wax ne boo ko dee génne li gën bu dee jiitu ñaari fan nañ ko génne jox ko ilimaan wala ku koy dajale nga xam ne su waaye bi tere ñu ko sédd ndax bis bee ko moom kon soo ko joxee nit mu tëye ko bisu it mu lekk ko moom mu benn jafe-jafe baax waaye soo ko joxoon nit mu lekk ko njëkk bisu it bi nag am na ci borom xew ñoo xam ne burum ko du baax su boppam moo tax loolu mën naa bàyyi daal bu fekkee ne eh, nit ki mën naa nit bu jant bi soo bu joxe ko wala boog mu jox ko ilimaan lu jiitu ilimaan dajale ko su waxtu jotee mën koo séddale loolu lu baax ndax li gën mooy ku nekk di ko joxal sa bopp wala ñu wut mbooloo moo xam ne ñoo koy saytu jox leen lépp ñu séddaleel ko waa xam nga xeeti jaamu yàlla yëpp nga xam ne joxe la ñu wut wut wut ku la ca wut moo ci gën ndax nit ñi dañoo baaxoo saa bu leen joxee sarax wala nga jox leen asaka dañ la ñaan dañ la ñaanal danañ la gërëm ñaan sax moom jaaru na waaye gërëm gi ñu lay def moom ndax li koy jox moom moo ko moom maanaam asaka wari yàlla lañ ciy gërëm nag nit ñi dañoo baaxoo saa bu leen joxe alal dañ la gërëm moo dañuy bëgg indi lu mel noonu nga wut ku la ko joxee bu amee kuréel boo xam ne dajale di ko joxe baax na wala nga dem ci ilimaan jox ko ko sëriñ bi joxe ndigal yoo xam ne yëpp yi mooy kër asaka yi mi ngi dajale asaka di dajale ay muuri koor ci fépp bari dañ ko yónnee day sàmmonte lenn lu nekk na mu war a def kon ñooñu ku leen ko jox incha allah taala ña ko war a jot danañ jot bi ci des ne bitim réew te dëkk Sénégal sañ nañoo joxe seen muuru koor Sénégal seen asaka yëpp dañu ko koy joxe ndax asakay xaalis dañuy wax ne nit ki fi dëkk ak fi muy liggéeyee fukk ci neex mën na koo joxe kon fi ñuy teree tuxal asaka mooy ak jur wala am mbay moom fi mu nekk rek lañ ko joxe kon muuri koor yi ku ne bitim réew te fa nga nekk kenn ku fa aajowoo wala xamoo ko fa mën nga ko yónnee Sénégal joxe kuréel bii bu bi taxawal ci ndigalum te waa tubaat ca kanam di ko saytu it liggéey bu am solo ñu ko ci liggéey séddale gun ñaar yoon ay ak i muuru ko kon ñoom itam ñu fi nekk lañ lu ci waay jaaral incha allah boo den nekkee ci koñ bi den climat joo xam ne xam nga ne ko maano rek ci dana laaj bi war laaj jox ko ni ko war a joxe nga jaare ko ci mucc ci nit ñi di la gërëm ba nga gis sa bopp ci loo xam ne waroo euh, kon jërëjëf Serigne Mbacke xanaa ñu bàyyi nga tàggoo rek euh, jërëjëf Serigne xanaa dellu di sant rek di ñaan suñu borom nag yëngu yëpp yàlla na ko yàlla barkeel di sant bu baax waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ci taxawaay yu am solo yi liggéey yi ñu def nii liggéey yu am solo la fexe ba jariñ nit ñi ci seen biir waaye di leen dimbale loolu am solo la eh, jëm naa ne sëriñ bi sosoon dëkk bii bi radiyallahu anhu bokk na ci li sant xolam nit ñi ne fi di dund diine ñu leen koy xamal ñu jaamu yàlla kon yàlla nañu barkeel yëngu yëpp ñaanal Cheikh Mountakha sunu bu gën fa yàggal gën ko dëgëral mottali ko ay ñu ngi jégal di baal wax asalaamaaleykum ñaan suñu borom mu defal la tawfeex ak taysiir sa taxawaay ci liggéey bi ci waxtu wu nekk moo xam ci koor gi la moo xam du weer wi waaye saa su nekk. lu aju ci liggéey bi doo ci tànqam lu dara kon ñu ngi la ciy ñaanal bu baax a baax ñaan suñ borom mu defal la ci tawféex di gërëm bu baax a baax bokk yi yi nga xam ne ñu ngi fi teew ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp di am mbégte di sant borom tabaraka wa taala bi nga xamee ne tàmbali woon nañ liggéey bi ba agsi tey ci bis yu mujj yi incha allah tey jii nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moo moom la ñuy woo bokk yi ngir gaaral liggéey bi ak it eh, woo ci kilifa yi kilifa gii di Cheikh Mouhamadoul Mountakha yabal fii Cheikh Moustapha Abdou Khadir ngir mu ñëw di tëj liggéey bi bu ñu séentoo weer wi nag niñ koy defee bu fekkee ne feeñul tamit waxtaan yi day wéy incha allah suba ak jàmm waaye naka jekk ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent day doon bis boo xam ne ci lañuy tënk liggéey bi ngir leeral ko bokk yi su ko defee laata sëriñ bi di agsi ñu leeral ab tënk ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci biir koor gi ak ni mu doon doxe euh, mi ngi tënku woon ci juróom-ñaari commission yoo xam ne ñoo doon saytu liggéey bi muy bi ci jiitu mooy commission secrétariat général nga xam ne ñoom ñooy coordonné liggéey bi am na tamit secrétariat administratif nga xam ne lépp lu aju ci wàllu bind meeg lettre yi ñoo ko yor am na commission organisation boo xam ne ñoo yoroon liggéey bi am commission sociale commission communication commission finance ak commission culturelle euh, ci biir loolu nag xam ngeen ne liggéey bi liggéey bu rëy rëy la boo xam ne ki ci jiitu ci di jëmmal liggéey bi te alalam di ci jiitu mooy ki nga xam ne mooy jëwrini borom liggéey bi di Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko at mu jot laata weer wi di teru dana yónnee ay xéewal ak ay addiye yoo xam ne day jëm si ci liggéey bi ni ki noonu tamit njabootug borom Touba gépp njabootug xaadim rasul gépp xam naa incha allah dañ eh, ci jeexital bi eh, sëriñ Afi buy lim buy wax dana leen sant waaye ñoom ñëpp safoo nañ liggéey bi di ci jëf-jëf yu am solo yu ama am solo sax yoo xam ne ñi ngi ko ñi ngi ko ciy jëf ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal euh, mbooloo mi nga xam ne tamit ñoom lañ seqaloon liggéey bi dañ doon joxe seeni addiya muy lim bu takk moo xam opérateur économique yi la moo xam liggéeykat yi ndax xam nga ne liggéey bi biñ koy sos ci 2005 ñoom opérateur économique yi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ñoo sosoon liggéey bi ànd ko ak ñun mu tàmbalee ci lim bu néew néew ñooñu tamit euh, ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te sëriñ Moussa Mbaye di ko coordonné ak sëriñ Baara Diop ñoom ñi taxaw taxawaay bu am solo membre yi daayira Muxaddamatul Xidmata ak kuréel yi nga xam ne ñoo aju ci daayira Muxaddamatul Xidma muy ñi nga xam ne ay kuréel lañ ñoo xam ñu nekk ci biir dëkk bi ci góor ñi ak ci jigéen ñi wala ñu nekk ci réew mi ñoom ñooñ ñëpp ni ñu àndeek daayira bi liggéey bi noonu la ñuy àndeek ñoom tamit ci joxe seeni addiya ni ko membre yi daayira bi ci boppam di defee ci kenn ku nekk joxe saw sas ngir yéwénal liggéey bi niki noonu ñu ngi sant tamit waa bitim réew ñoom tamit dañoo am rôle bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci liggéey bi moo xam Amérique muy fondation Moukhaddamatoul Khidma Amérique wala diaspora bi yépp muy Europe ak Afrique ak Asie yépp ñu ngi leen di sant bu ñu jëlee cant gépp teg ko ci loxol Serigne Assane Diop dana ko jàllale ci ñëpp niki euh, daayira yi nekk ci biir dëkk bi ak kuréel yi ñoom ñëpp it ànd si na ñoom ñoom liggéey bi eh, ngir teew fi muy kuréel yi nga xam ne ñoo yëngu ci xam-xam ak ñi yëngu ci wàllu économie ak ñi yëngu ci wàllu gum mën a doon kenn ku ci ne ci ñoom am na bis boo xam ne ñëw nga déglu si waxtaan wi doge si ni ki noonu tamit administration bi muy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu àddina ñoom ñëpp li ko dalee ci préfet ak sous-préfet ak police sapeur pompier ak croix rouge ak mboolem chef de service yi nga xam ne ñoo nekk ci département Mbacké ñoom ñëpp teew nañ fii teew ci waxtaan wi ba noppi it euh, visite liggéey bi xool ndogu yi xool ni mu demee ba noppi it seen service yi nga xam ne daayira bi bindoon na leen ñoom ñëpp ngir ñu jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp yabal nañ leen fi moo xam police wala sapeur wala croix rouge ba ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu faj mi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla taxaw nañ ci taxawaay bu am am solo ànd kook ñun ni ko noonu commune Touba Mosquée njiital suñu Abdou moom tamit euh, teew nañ fi euh, délégation bu mag ba noppi ànd ak ñun ci liggéey bi ci lépp loo xam ne yittewoo nañ nit ki ñi ma tudd ci ñi ma tudd ñëpp moo xam opérateur économique yi wala borom man-man yi wala borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi doon ànd ak ñun liggéey bi te suñu borom dogal ñu jiitu ji ñu ngi leen di ñaanal suñu borom dool leen yërmande Eh, defal leen tawféex fa ñu nekk barakati xaadim rasul ni ma doon lim léegi ci ne commission yi ñoo yor liggéey bi eh, nii la tëddee eh, maanaa commission organisation bi nga xam ne ñoo yor liggéey bi nga xam ne taxawaay bu am am solo bu rëy rëy rëy boo xam ne ñu ngi koy taxaw ci ci ci ci liggéey bi di ko tàmbalee ci neuf ci suba maanaam daanaka fajar ci la ñuy ñëw ngir raxas bagaas yi ba vingt trois ci guddi ñu toppatoo xéewal yi buñ noppee ñu raxas barab bi setal ko ba mu set taxawu naafila gi bañ naafila ba noppi ñu doog a dellu loolu di liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne bis bu nekk te loolu tërëwul tamit kenn ku nekk li la war ci liggéey bi muy sa addiye euh, def nga ko muy commission boo xam ne mbooloo mi nga xam ne ñoo ci nekkoon di ci liggéey mat na juróomi téeméeri nit juróomi téeméeri nit mat nañ ko ci ay membre ci ay góor ak ay jigéen ñoo fi nekkoon di saytu liggéey bi ndax doonul liggéey bu yomb waaye mu am ay sous commission yoo xam ne ñoo koy ñoo ko ñoo lëkkaloo ci loolu di ko def muy liggéey bu am solo moo xam ñi nga xam ne ñooy raxas bagages yi ñiy defar xéewal yi ak ñi nga xam ne ñooy defar barab bi di ko setal buñ noppee ak ñiy jubbanti sàppe yi ak ñi nga xam ne ñooy taxaw naafila yi ak ñi yor sécurité bi ñoom ñëpp ci biir commission boobu lañ bokk ñoom ñu ngi leen di sant bu baax am na benn commission islamiya muy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu communication ñoom tamit mbooloo mi ci nekk liggéey bu am am solo def nañ ko ci biir koor gi mooy ñoo doon euh, tisaare waxtaan yi yépp ba képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi wala bitim réew te teewoo ci barab bi man cee jot jotin wu leer ci image ak son bu leer di direct mboolem waxtaan yi ak naafile yi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax mooy ñi nga xam ne ñoo doon jàpp ci liggéey bi moo xam ay caméraman lañ wala ay journaliste wala ay niti rajo ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñi nga xam ne ñoo doon topp dayre bi tamit euh, ci situb daayira bi muy muy muy muske Touba ak GMT ak MKTV ñoom ñëpp it euh, ñu ngi rafetlu seen liggéey liggéey bi rafet na lool. di sant it taxawaayu site yi nga xam ne ñoo jëloon signal ci situ Muxaddamatul Xidma muy Bisri TV Académie Minan Rafa TV Touba Vision Alxadimiya Salamiya TV euh, Sunu Info TV Timis TV Siiwal TV ñoom ñooñ ñëpp dañ doon jël signal ci situ. GMT ak MK ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di baral cant télévision Lamp Fall TV ci taxawaayam waxtaan yépp daf koy direct ak rajo bi di leen di leen beral cant ci seen taxawaay ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant mboolem ñi nga xam ne ñooy ay rajo nekk ci dëkk bi di ci beralu cant rajo jant bi rojo jant bi ak ceeñeeram ndax lépp luy waxtaan yi ak naafila yi dañ ko doon jël di ko jàllale en direct cant googu ñu ngi koy teg ci loxol sëriñ Cheikh Aliou euh, waxtaan yi ñor na leen lool ñu ngi koy sant bu baax di la gërëm projet yi nga xam ne ñoo doon def direct ak yi nga xam ne tamit su waxtaan wi noppee dañ koy jàllale ñoom it mën nañ cee lim ICAP Touba Fall FM Wal Fajri FM Sud FM Sik FM Touba Mbakke FM Ñaaxeen Benno Biral ak jant bi rajo jant bi ak ceeñeeram ak leer gi ñoom dañ doon jàllale direct waxtaan yi ba noppi di ko di ko tegaat ci diirub koor gi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ana beneen commission boo xam ne ci niñ ko limee léegi boo xam ne bu am taxawaay la ci liggéey bi muy commission sociale ñoom ñu ngi rafetlu seen liggéey euh, délégation yi nga xam ne ñoo doon wuy si dalal nañ ci lu mat juróom-ñaar fukk ci ay mbooloo kilifa yoo xam ne ñëw nañ fi ngir ànd ak ñun liggéey bi taxaw ci taxawaay bu rafet am na ñoo xam ne yónnee nañ fi seeni ndaw ñoo xam ne yénn nañ fi seeni barkeellu am ñoo xam ne sax dañuy woote téléphone di rafetlu liggéey bi loolu it ñu ngi leen di sant bu baax ndax xam ngeen ne liggéey bi ren dafa yaatu lool ndax dañ daa def e, ndogu yi ci wet gi féete nii rek ak kër Sëriñ Fall léegi liggéey bi dafa dem ba daj ba ci wet gi féete kër Sëriñ Saliou nga xam ne suñ doon xayma daaw buñ doon xayma liggéey bi ci mbooloo mi fiy daje doon na man ñeenti junniy nit ak lu topp ren ji daanaka buñ ko xayma jege na lu tolloog bët bu set daanaka juróomi junni ci mbooloo nga xam ne loolu soo ko dee xool euh, lim bu baree bari la ci ab yokkuwaay ndax gis nañ ne nit ñi dañuy gën a ñëw te dañ koy gën a aajow moo tax bokk yi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ni ñu ko waxee léegi di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak kilifa yépp ay da sëriñ bu ñëwee dana ci dana ci dana ci sant dana ci jot di cant ñu du ñàkk xëy na am ñoo xam ne dañ ci am ay taxawaay rëy rëy yoo xam ne euh, mën nañ leen cee seete waaye ni ma ko tudde léegi ci opérateur économique yi Alaaji Ablaye Ja da ci da ciy dugg waaye bu dee ci kilifa yi tamit Sëriñ Muntaxa mën naa nekk ci bopp bi waaye kilifa yi nekk ci agronome ñëpp muy sëriñ Basiru Abdu Xaadir ak kilifa yi fi teew nii yëpp waaye mën nañ ci ràññee sëriñ Basiru Xaadim Awa Ba mii ci taxawaayam ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci buy koor ak budulu koor la ci lépp loo xam ne matériel la wala jumtuwaay boo xam ne daayira bi soxla na ko soxla na ko dana ko wut indi ko walla mu seet ku ko man mu wut ko andi noonu tamit la koy defee bu koor gi ñëwee day jàpp ci liggéey bi mu ànd ak mbooleem ay bokkam ak ay xaritam ngir ñëw teew ci te noonu la ciy taxawe kon moom it ñu ngi koy beral cantam ci yitte ji nga xam ne jox na ko liggéey bi baax a baax niki noonu am na commission boo xam ne bu am solo la ci liggéey bi muy al lajnatu saxaafa euh, ñoom it am nañ taxawaay bu am solo boo xam ne ñu ngi koy taxaw ci liggéey bi ndax ñoom ñooy coordonné mbooleem waxtaan yi yi ñuy def te diiru weer yi bi mu tàmbalee ba léegi ba tey jii sëriñ Mbàkke Abdourahmane bi jeexal euh, def nañ fi ay waxtaan yu am solo yoo xam ne suñ ko doon xayma soo indee lu lu aju ci wàllu fataawaay muy laaj ak tontu nit ñi nga xam ne dañuy yittewoo seen diine te doon jaar ci numéro whatsapp yi wala site wala site jumaa ji soo dee xool daanaka yónnee nañ fi eh, tontu nañ leen ci lu ma téeméeri laaj ak ñeent fukki ak ñeent maanaa ma maanaa euh, ci boo ko xoolee ci diirum ñetti fatwaay yi nga xam ne def nañ boo ko li boo ko boo ko boo ko boo ko totaalee day mat ñaar téeméer ak ñaar fukk ci ay laaj yoo xam ne ñëw nañ fii ñu tontu loolu nag liggéey bu rëy rëy boo xam ne ñu ngi sant mbokk yi ko doon taxawee ñoom ñëpp bu ñu jëlee cant gi teg ci loxol Serigne Mbacke dana jàll ci sunu yeneen mbokk yi Serigne Cheikhouna ak Serigne Cheikh Bousso di nuyu tamit ak sant conférenciers yi borom yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci liggéey ñoom ñëpp Serigne Cheikh Mbacke ña ngi ñu jàkkaarlool kenn la ci ak bëri na ñu fi teew. ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu dayra bi da dul teel a tàmbali rek ndax su fekkee ne koor gi des na ñetti weer ci la ñu di dajale proposition mawduwaat yi ak ni waxtaan wi demee ak yëpp ba tënk li nga xam ne moom lañu war a waxtaan te lu liggéey bu rëy rëy te dañ koy ànd ak ñoom ñoom ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ren moo tax euh, boo dee xool waxtaan yi ni mu tëddee euh, am na fukki waxtaan ak juróom-ñett ñu koy wax ay mawdu am ay duruus te ay ay bind yoo xam ne dañ koy jàngal nit ki ci diineem ngir mu man cee jariñu ci lu jege am lu man ñeenti fatwa nga xam ne soo ko dee xool euh, ñeenti fatwa yi ñu ngi ko séddale ci ñeenti semaines yi maanaa semaine bu nekk am benn fatwa ak ñaari durus am tamit ñeenti mawdo boo dee xool noonu lañ ko séddalee ci diiru fanweeri fan yépp ba suba incha allah liggéeyu lañetu saxaafa tamit bokk na ci ci biir koor gi xam ngeen naka jekk dañuy tàggat ñuy yëngu ci jumaa yi moo xam imaam yi la moo xam noddukat yi moo xam xutbakat yi loolu tamit liggéey la boo xam ne dañu koy wéyal saa su koor gi ñëwee ren jii amal nañ fi ñetti jataay yoo xam ne ñëw nañu fii ci jumaa ji ngir ñu leen di tàggat ci li ñuy fexe ba noddu ak nu ñuy fexe ba mën a liqaam bind ab téere boo xam ne téere boo xam ne wolof la ñoom ñëpp ñu ñu tàggat leen jox leen téere bi ba noppi eh, jox leen li ñuy wax shahada musaaraka nga xam ne am na ay groupe yoo xam ne am na ñu leen jiite mën a continuer di leen tàggat ci loolu ba ñëw nañ fii def benn jataay boo xam ne ñoom ñëpp euh, yaakaar naa ñu ci bëri ci ñoom fi mu nekk nii li leen tee ñu qualifié lool ci nodd ba man koo jàngale bëriwul loolu boo dee xool ñaar fukk ak juróom-benn jóge ci ñaar fukki jumaa ak juróom-benn yoo xam ne ñëw nañ fi ñu tàggat leen ci nodd ak liqam muy liggéey bu am am solo te noonu la ñuy wéyale tàggat bi tamit incha allah kon boo dee xool ci tënk daal ci biir liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci koor gi nii ma ko limee noonu la demee muy liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne eh, liggéey bu sëriñ Tuubaa la boo xam ne sëriñ bi rek gis na képp koo xam ne jëf na ci walla mu yéene woon cee jëf wala mu dégg ko bég yàlla na la sëriñ bi fay te defal la tawféex su ko defee laata sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi waaj a agsi bu ñëwee incha allah moom la ñuy jox kàddu gi nim ñu daal la biiree ci waxtaanam yu am solo yooyu ak ndénkaaneem yu am solo yooyu teew ko di di ko def ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général de Mouride yàlla na fi yàgg lool te wér. su ko defee sëñ Abdou Lahad xam naa dañ lay jox kàddu gi nga yëkkati ay kàddu ci turu Sëriñ Afe bu ñu noppee sëñ Moustapha euh, jël jël jël kaddu gi eh, kaddu gu mujj gi bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Afiya Buso imaam yi nga xam ne mooy njiitul daairatu muqaddamatul xidma bu yónni ñu ay kàddu gàtt rek yoo xam ne kàddu cant la di kàddu ngërëm jëm ci kilifa yépp waaye di tàmbalee fa mu war a tàmbalee muy a cheikh Mouhamadul mu ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér te li ay yéeneem te nu ànd kook moom lii am solo ci liggéey bi lépp lépp mooy ni ñu doon ni mu doon doxe ci diirub koor gi sëriñ Abdul Ahad mii leeral na ko ba mu leer nañ mboolem ñi nga xam ne am nañ ci ay taxawaay yu ràññi ko it sëriñ Abdul Ahad tudd na leen ba mu leer nañ te waxtu wi xat na lool kon du jar ñu di ci jaaraat ndax ci kaddu moom itam ci kaddu sëriñ Afiya rek la doon waxee waaye muy xam le ne daal ginnaaw moom mu santee njabootu sëriñ Tuubaa gépp tàmbale ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne bi liggéey bii di tàmbali yabal na fi sëriñ Modou xaban moom Cheikh Mouhamadul Fadil mu ñëw ubbisi ko bi ñu egsee ci di ko tëj yebal na fi Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Abdoul Khadir mu ñëw di ko tëj si kon nag kaddu yi yi nga xam ne moom lañu waree jëme ci moom lot nañ ci jotal ko nañ ko war a jotale waaye teewul nag ñu joxe suñu kent lay kattan xam la ne am nañu mbégte lool ci liggéey bii bi mu tàmbalee ci ndigalul Serigne Touba di jeexee ci ndigalul Serigne Touba. di sant itam mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi gépp ndax diirub weeru koor gi fu nekk ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ay kilifa bàyyi koo nañ fa ñëw teewee si liggéey bi seere ko jëf ci itam seen alal te loolu it dafa bokk ci li nga xam ne day gën a dalal suñu xel bu baax ci ni liggéey bi sëriñ Tuubaa nangu na ko di sant itam njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam ne ñooy njabootam gu jigéen bi ñoom itam nii njabootam gu góor gi taxawee ci liggéey bi rek noonu la ñu ci taxawee xëy na rek du ñàkk ñu tudd ci ñett ni ñu tuddee ci góor ñi ngir gën koo matale mën nañ cee ràññee soxna Gàdd bu so soxna maam Marème Mbàkke moom Serigne bu ak soxna May As moom Serigne Abdul Xaadir waaye bu ñu leen tuddee nag dañ yóbbaale seen bokk yépp jubluwuñ leen dañoo am rek la waaye dañoo tudd lañ leen a tudd ngir ñu seen bokk yépp ni ko Serigne Abdul Ahad defee léegi ci seen bokk yu góor yi jot tudd di sant itam mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci wàllu administration tàmbalee ko ci préfet ni ko sëriñ Abdou Lahad waxe léegi ñoom ñëpp teew nañ fi waaye di sant nag kilifa yi nga xam ne ñoom lañu nekkal fii ci jumaa ji ñuy suñuy kilifa te taxawu liggéey bi te jiite ko taxaw ci taxawaay bu rafet tàmbalee ko sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso mi ngi nii teew ak sëriñ Afi mi nga xam ne mooy seen kilifa te dañu wax loo ak Cheikh Mouhamadul Amin sëriñ Baara mi nga xam ne ak sëriñ Mouhamadul Fadil mii nga xam ne mooy jiite taraweex ak ñi nga xam ne itam ñooy ñi nekk jumaa ji yëpp di noddukat yi ak ñëpp ñi ci jàpp ñu ngi leen di sant bu baax ndax diggante bi weer yàgg na lool liggéey bi it metti na lool coono yi itam metti na lool waaye mboolem ñu fi nekk muñ nañu bang-bang yi ñu fi nekk muñ nañu coono yi muñ nañu yëpp ànd ak ñoom sax di leen jàppale ci liggéey bi ci tënk ci daaneel rek ñuy sant mboolem nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira muxaddamatul xidma ku jege ak ku sori muy ñi nga xam ne ñooy xëy si di liggéey si ak ñi nga xam ne it ñoo ciy def seen alal ak fu ñu mën a nekk rawatina opérateur économique yi nga xam ne liggéey bii ba muy tàmbali ñun la Serigne Saliou boole woon joxandoon ndigal li te Serigne musaa mbay ak Serigne Bara Diop nekk ci bopp ba Serigne bi nee na mi ngi leen di jottali ay kaddu cant yu bàyyeekoo ci Serigne bi ngeen jottalil ko ko mbooleem koo xam ne jaarale na ci yéen te mu egsi fii di santit waa bitim réew waa Amérique waa Espagne waa France waa Suède waa Angleterre waa Côte d'Ivoire waa Mali ak waa Gabon ak euh, mboolem réew moo xam ne rek dara jóge na fa lu mu néew néew dugg ci liggéey bii ñooñu ñëpp ñu ngi leen jotali kàddu yu cant te di leen jotali kàddu yu ngërëm tey ñaan ñu waat ko ni ngeen déwén kenn bañ a waxtu wi moo xat ba li ñu bëggoon a jottali lépp xëy na des ko ci mën a jottali waaye li ëpp ci solo ci liggéey bi sëriñ Abdou laxat mi ñu jiitu woon tënk na ko boobaak léegi euh, boobaak léegi lépp lu ci def rek wax na ko te na mu gën a leere kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jébbal kàddu gi sëriñ bi euh, ci ci di jébbal kàddu gi sëriñ bi ci turu sëriñ Abdou nga xam ne moo yoroon kàddu gi waaye comme waxtu wi dafa xat rek mu jàllale kàddu yi nga xam ne mooy kaddu yi mu bëgg a jàllale te muy li nga xam ne moom la ko sëriñ bi yóbbante yi ñii amee woon liggéey bi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yushku shahru ramadan alal intihai bi ruhaniyatihi wa barakatihi wa fadlihi wa huwa ash-shahru al-fadil walmunasabatu alazima allati la tajuusu an tamurra alayna doona an tatruka asaran fi tafkiirina wa masaari xayaatina innahu chahru taadib wa taadib li annana kama naalamu in al abda yakunu aqrabu ila llahi subhanahu wa taala indama yakunu saaiman fannafsu tasfu wa makaarimul axlaaqi tuxiitu bil insaan fa tajxaluhu yaatifu ala alfuqaraai walmasakini wal ay wal aytaami waxat kasral ahadisu fi tibyaani fadaili sawmi wa minha annahu qizaaun lirruuxi wa tatxiirun linnafsi wa ismatun lilisaani wa tarwiidun lishahawaati wa hathun ala tafkiiri fi masi fi masiril jawaa fi masiril jawaa wa taqwiyatun lil iraada wa yakfi an nushi an nushira fi haza almaqaam ila ma qaalahu cheikh fi haza sadad laa silta maa hiya aw zaarin wa qaadiya aw taarin wa taarida axyaarin min alxaladi wa saafidan kulla sheytaanin bima maahu wa muthifan li dawi lixsaani bisafadi wa mudhiban kulla axsaanin nadiiqu biha fi dahri afidatan yaa mudhiban nakadi wa zaidan kulla aamin ma nafuusu bihi min joodi muxnin karimin naafihi sayadi yaa chahra rabbin karimin fiika jaadalana bi laylati alqadri daati alfadli warragadi inni uxibuka xuba daati da talabin min maliki fiika isaadan bila awadi dellu wax ne ko lishhad bi kaw nii abdallahi fiika bila xishin wa lishhad bi anni tubtu min xawari sir daa qufoolin li rabbin laa sharika lahu fi lmulki walhamdi rabbil jinni wal bashari laa silta dayfan kariman qad yubashiru nii fi sirri wal jahri bil ihsaani daa bushari asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fi teew yépp mbokk yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu daayiratul muqaddam daayiratu muqaddamatul xidma ñu ngi leen di nuyu ci njiitul sëñ Afia di leen nuyu ci turu alxalifatul am li taifatil muridiya di leen jaajëfal ci aw turam di leen sant bu baax ci dundal gi ngeen dundal weer wi dundal gi ngeen dundal euh, weer wu mag wii ci wetu sëñ bi dundale ko ci jàkkaam ji nga xam ne ku ne xam na ne mooy jàkka ji nga xam ne ci taqwa la ko sose ussisa ala taqwa min awwali yawmin mu doon dundal goo xam ne nam ware defe ngeen ko ni ba bis bu ne mbooloo doge fi kon loolu lu réeréy la yal na yàlla nangu lépp jéego yi ñu fi jéego yépp ak mboolem ñi ci jàpp ñépp yàlla na leen yàlla nangul ramadaan nag moom lañuy tàggu ci cat li lañ ne tey wala suba ci lenn ci lay jeex ci ngëneel yi ngëneel yi baatin yi mu yoroon ak barke yi mu yoroon mooy weer wu baax wi nga xam ne di e, munaasaba boo xam ne wër jaar ci ñun jàll te bàyyiwut jeexit ci ñun ci suñuy xalaat ak ci suñu dundin ndax mooy weer wi nga xam ne ci la alxuraan wàcc mooy weer wi nga xam ne dafa ñëw ngir yarnu ndax ku ne xam na ne ab jaam fi muy gënee jege yàlla mooy bu wooree ni ki nga xam ne buy julli lay gënee jege yàlla waaye ba mu ko gën a jegee mooy bi muy sujjóot ci waxtuus bi muy sujjóot ci la nit ki di gën a jege yàlla noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yakunu al abdu li rabbihi wa huwa sajidun waaye su koor la mel koor nag ndax bo bu bu ñëwee lim lay jariñ mooy day sellal sa bakkan dalay indil makaarimul axlaax makaarimul axlaax jooju moo lay wër ba tax sa xel dina ci fuqaraaw yi dina ci miskiin yi dina ci jirim yi yonent bi indi na addis yu bari yoo xam ne day tegtale baaxu koor a ngëneeli koor wax na ne day dundal roo da koy suuxat day laabal bakkan day musal aw làmmiñ da koy day tàggat bànneex yi te sëñ bi daana wax ne ku ne sa caabi àjjana sa bakkan sa sa bakkana ko yor boo bëree moom ba daan ko rek daal jot ci caabi ji kon bak lii dalay dimbale ci saxawaat yooyu nga mën leen a tàggat dalay soññ it ci nga xalaat ñi nga xam ne ñooy jawxaa yi ñi nga xam ne dañoo xiif ñoo ñëpp seenu mujj nga di ko xalaat dana taxit sa iraadatu gën a dëgër moom koor moo tax sëñ bi fonk fonkoon ko fonk goo xam buy jub loo ko laaj mu jox la ko daal di koy tagg ay xaside yi xaside yoo xam ne mat na diwaan wax ne yàlla boo dañ di far ay bàkkaar di faj ay aajo di dàq dàqu yeneen yi yeneen yi nga xam ne bokkuñ ci yépp yaa ngi yàlla na yaa ngi leen yàlla na nga leen yàgg a dàq yàlla na nga yàggay njoñ seytaane ak lim àndal te ñi nga xam ne ñooy def lu rafet nga di leen indil ak may safadu mooy ak may yàlla na leen yàlla yàlla na nga yàgga dàq dàq njàqare njàqare yépp yàlla na nga ko yàgg mboolem njàqare yi ne ci xol koor da koy dindi sëñ bi nee ne nag ñu ñaan waxtu wane koor di ñu mën a dindil njàqare yooyu ne ci noonu ndax ab julit waxtu wu ne dafa war a ragal fal jam mu baynal xaw fi war a li suñ bi wax julit dafa war a boole ragal ak yaakaar wa saaidan kulla haamin ma nafuusu bihi min joori muxnin karimin naafi saydi waxtu wu ne yaa ngi yàlla na nga ñuy indil ay bagaan yu bari yoo xam ne day dolli ko ci li ñu yàlla daa may ndax yàlla yonent bi ku ne xam ne tabe woon na waaye bu koor ñëwee day gën a tabe suñ borom it li muy mayee lépp bu koor ñëwee da ko yokk sëñ bi daal di ci waxaat ne yow weer wi nga xam ne yaa ci yow lañu yàlla maye laylatul xadar nga xam ne kon moom saxal na ne laylatul xadar ci koor lay nekk inni uhibbuka ndax day lu borom xam-xam yi werante yi lu bari nag inni uhibbuka hubba zaati za talabin min maliki fii ka isaadan bila awali maa ngi lay bëgg ni ñuy bëggee jëmm loolu kenn musu fa àgg ak koor di sàkku ci ci buur bi ak texeel mu di ko defal ci yow te dara bañ a jàngar lishat bi kaw nii abdallahi fiika bila xishin wa lishat bi anni tubtu min xawari na ma seereel fa yàlla ne jaamu yàlla laa te lépp lu di doye di maa ngi koy jéggi sir sirsaa xafoolin li rabbin laa sharika lahu fil mulki walhamdi rabbil jinni wal basri dellool ci yàlla mi nga xam ne nag amut sharik ci dara ci nguuram ga cantam gi amu ci bokkaale cant gi moo ko moom moom dong dellool fa moom te seedeel ñu fa bu baax a baax a baax suñu ngërëm ak suñu cant kon laa silta dayfan kariman qad yubassiru nii fi sirri wal jahri bil insaani saa basiri yàlla boo dañ di gan goo xam ne nag danga may bégal ci biir ak ci bitti ci lu kon loolu la sëñ bi daa eh, nuyoo koor ak di ko tàggoo kon liñ ci war a jànge mooy koor mooy li ko itteeloon moo moo ñu wan nees ko war a dundale moo moo ci daa jàngalu alxuraan ju bari juy sell di ci dundal di ci joxe ñam di ci dimbale nit ñi mooy ki nga xam ne bu masaa koor masaa ñëw loo ko laaj mu defal la ko soxna Aminta Bousso daana ko wax bu koor di jub lépp loo xam ne wax nga ko sëñ bi mu ne la xanaa danga ma koy waajale sama gan gi daal la koy defal na nga ko bëggee kon nag nañ gën a tënku ci ay ndigalam gën koo fonk te di ko yàkkamti ndax koor ku xam yonent bi nee na bu ngeen xamoon ngënee li ne ci koor ngeen mébét at mépp nekk nekk koor loolu la yonent bi wax ci hadiis bu ngeen xamoon li ne ci koor kon dangeen di mébét at mépp doonoon ramadaan ndax ramadaan mooy li nga xam ne moom képp la yàlla tudd ci alxuraan ci aw weer asharul xurum ku ne xam ne weer yu màgg lañ waaye ñii ñëpp yàlla ci tudd ci benn chahru ramadan rek moo am ci alquran alladi unsila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan moom nag ñi koy woor ñaari xeet lañ benn bi dañoo nekkoon ci lu baax waaye de xeet sax lañ koy tënk benn bi dañoo nekkoon ci lu baax koor ñëw ñu yokk ko gën a farlu gën a jëm ci yàlla gën a yokk naafili bu jàllee ñu gungi ko gën a farlu ci seen digganteeg yàlla naafile naam daanañ ko def waaye ñu yokk ko di dun defal taraaweex yi ñooñe mooy ñi nga xam ne ñooy ñoom la yàlla di wax ci alxuraan wala si ni yootoona maa aataw wa xulubuhum wajilatu nannahum wa ila rabbihim rajihoon ulaayika yusaarixoona fi lxayraati wa hum laha saabixoon ñooñe mooy ñi ñi gën a kuréel bi kuréel bi man te gën a jàmbaare bi ci topp mooy ñi nga xam ne newoon nañ ci lu wër waaye bi koor ñëwee nag fas yéene nañ ko def ab dabaatal xam nañ ne xol mooy xolub at mi bu yéenee lépp yéen ñu jiima farlu jiima góor ba bam jàllee it fexe nañ ba mu bàyyi ci ñoom jeexit ndax koor bu jàllee lañuy xam sa koor nangu na wala nungul nañ koy xamee mooy boo bu la jëmee ci jaamu yàlla jëmee la ci topp yàlla soppi inxiraaf gi newoon ci yow ñu xam ne sa koor nangu na nekkoo raasib yow am nga na jaaxe bu fekkee dafa jóg ker weer wi jox rek nga yow jàppoo ne eh, rabba haasa rabba haasa sari huwa rabbu huwa rabbu jàppoo loolu daal delluwaat ci la nga ne woon mooy bu ñetteel bi kooku mooy ki nga xam ne ak kooram jëliwu ci dara ndax rasib la yal na ci yàlla musal kon li gën mooy ñu gën a jox suñ bopp yàlla gën a defaru gën a bu koor gi jàllee mu bàyyi ci ñun jeexit joo xam ne danañ xam ne nii wutoon ci ñu noon waaye koor ko def ci ñunoon noonu la ko sëñ bi daa soññee noonu la ko daa waxe te bu jàkka ji da ci daa def waxtu wu ne ay waxtaan di tombal nit ñi di leen soññ ci yàlla di leen gën a jëme ci yàlla bind ko it ci xasaay bi nii mu ñu wax rek buñ ci saxee danañ mën a jariñu danañ mën a dund dundin woowu mooy wajtani boo ahwaa nafsin wabtidaa wastaxiloo fii kulli hiinin bi ittibaa muy muy bànneexi bakkan nañ ko teet teet bidaa te soxlawoo topp na dellu ñu wax ne laa taroomoo duxoola jannaati haddin bi ruxaadin wa lahwi wa bu leen bëgg a tabbi àjjana ci di nelaw yàndoor ak di fo ak di topp seen bànneex ngeen di ci wute àjjana neen munta ne xasida gu safoon sëñ bu xasida la mu di ko jàngaloon gi way wii ne man lam yurit say an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayruhu awlaahu képp koo xam ne dem nga ba bëggoo lu dul yàlla danga àgg ci yàlla loolu moo baax yàlla nañ ko yàlla defal boo ko defee tomb yi sëñ bi wax na ci jëlee naa ko ci sëñ Demba Kebe ci ay tombam mu ne assalaamatu wal xaafiyatu fi dunia wal axirati tatawalladaani min niyati alxayri wa fihli alxayri wa mulaasamati alxayri mu ne jàmm ak xaafiya mooy jàmm rek ju ne bey ci àdduna ak alaaxira mi ngi juddoo ci yéene lu baax ak jëf lu baax ak taxoog lu baax sëñ Tuubaa daal cay teg ndax noonu la ko sëñ Demba binde daal ne loolu lépp nag boole dañ ko ci wenn bayit waxat jumihat fi baytin waahid in wi in wi waxul wafal in wi waxul wafal wala in wi waxul wafal wala sim taslimi mukarraman rumil xulaa bi kalimi sëñ bi dafa wax ne yéeneel lu baax tey wax lu baax tey def lu baax te taxoog lu baax wala si bi taslimi kon da mucc mu karraman boo muccee ba noppi da nga doon kuñ teral rumil xola bi kalimi sama ba sàkkul ak kawe ci baat yi ma wax jaar ci boo ci jaaree danga am kawe gi nga xam ne moom laa lay yéene kon na xam ne koor balaa nangu da nga ciy jëlee taqwa yaa ayyuha llazina amanu kutiba alaykumu siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquna rek inna salaata tanha anil wal munkar julli dafa mel ne li ko tax a jóg mooy tere ñaawteef ak lu bon julli nangoo rek day mujj dutoo mën a def lu ñaaw lu ñaaw sa kooreet bu nangoo da am taqwa ndax illa illab jaamu yàlla bu yàlla wax na la tax la muy jur ci boo wàccu di yoon wa kon julli siyaam moom yu addi li taqwa dalay yóbbu ci ragal yàlla koor nag yàlla da koo fonk ba yonent yi njëkkoon yépp yépp yépp yépp ku ci ne daanañ woor moo tax ma ne kamaa kutiba alal lazina min qablikum dem na ba xayewaanaat yi ci àll bi sax dañuy woor yi ci géej gi yi ci géej gi ba ci am na ci rab wu ñuy wax dubbul xutbi yu mu ngi nekk ci bu simaal dana woor juróom benn weer borom xam-xam yi seet nañ ko gis ko ne dubbul xutbi yu dana woor juróom-benn weer rab yi ci biir géej gi dañuy woor kon woor lu am njariñ la ñëpp xam nañ ne bi ko yàlla sant bi bi yonent yi njëkkoon ñëpp mu waa kër Moussa dañuy woor waa kër Isaa dañuy woor ñoom ñëpp dañuy woor waaye liñ ci jubloon bi yonent bi ñëwee nag lak ko yàlla jagleel moom muy aw muy farata ci aw xeetam daal di ko koy séddee nag mu defal ko ci jagleel ko ci lu ko ko ci kenn jagleelul daal di ko ci wàcceel it alxuraan mu nekk xidul milaadiyat bu alxuraan ndax ci ci ci ci lañ ko ko wàcceel ci biir weeru koor ñeen ñi dañu fukki fan ak juróom-ñaare werante nañ ci woon nag werante nañ ci waaye nag lu mu ci mën a doon daal ci xaaru xiraa ci la njëkk a fekk muy def taxannus mooy taxabut foofu la alquran njëkk a wàcce ni iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka alladi kon yéen ngeen xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yàlla dañ koo tawfiixale tawfiixale ñu it sëñ bi yonent bi darajaam taw tawfiixale ñu sëñ bi xaqaat nag day boroom xam-xam bu mag dafa wax lu rëy rëy dafa wax ne li inna al insana allazi laa yara xasamatal azimi insanun laa yusaawi sayan wa inna al mujtama alladi yadiihu fiihi l kabiiru yadiihu fiihi saqiiru laa maxaalata nee na nit koo xam ne munta gis ka gën a màgg ci àdduna kooku ta gis kenn ñi ndëkk gi yonent bi te mënuñoo gis màggaay ak yonent bi mënatuñoo gis leneen waaw naka noonu it koo xam ne ka gën a màgg mënoo koo gis ka gën a tuuti loo ko mën a gis loolu moo dal nit ñi ci yonent bi moo dal nit ñi sëñ bi kon yàlla bi ñu yàlla taw fi bañ mën a gis sëñ bi war nañoo sant bi ñu ma yàlla taw fi xele bañ bañ xam daraje yonent bi ci liñ ci mën a xam war nañoo sant alhamdulillah ndax xéewal yépp moo ñu ko indil kon ñi ngi sant ñépp bala maa tëj nag askurul askuru muqaddamatal xidma wa jamia al ulama alladina kaanu yulquuna al muhaadaraat fi lmasjidi alxadimi wa kulla man saahama fi mawaidi aliftar wa jamiha alquddaami alladina kaanu yaxdimuuna fi hasa almajal wa nasalu llaha tabaraka tabaraka wa taala fi hasa almasjidi alxadimi alladi ussisa ala altaqwa wa fi hasa alyawmi almubarak an yakla'a sëñ Muntaxa wa an yaxfasanaa wa an yusaddida ala tariqi alxayri xutaa ala tariqi alxaqi walxayri xutaanaa kama nasaluhu an yuhiida haasihi haasihi ayaam ala al ummati al islaamia wa ala al basariyati jamaa bil yumni wal xayri wal barakaat wa kullu aamin wa antum bi xayrin assalaamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu nangu sëriñ bi ñaan waaleykum salaam alhamdulilah ñu nangu ñaan siraatal mustaqim siraatal ñi ngi sant kilifa yi fi teew yëpp bu gën nañ leen a tudd ñoom ñëpp waaye waxtu wi moo moo xat waaye gis nañ njabootuk sëriñ bi ñu fi teew ñëpp amin amin